نفسا بالغاد أتيت به لزاد سكريايا وابح يا الله السلام عليكم شيخ ndigal maaleykum salaam wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar te di leen baalu te di leen balaax di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm te suñu borom may leen mboolem taalibe yi nga xam ne war nañoo jóge ci ay barab ñëw màggal si ci dëkk bi suñu borom may leen kattan te sàmm leen aar leen ba ñu agsi ci jàmm ak salaam ñi am yeneen yi ñëw itam te ñëwuñu suñu borom fekk leen fa ak ay xéwal ba ñu yëg ne màggal gi law na ba àgg fépp ah, Cheikh Diop Ndigal bokk ci daayira bu ñuy wax daayira nekk ci responsable yi itam bokk ci ñi nga xam ne nii ñoo jiitee wàllu restauration bi wàllu hébergement bi fii ci biir kër gi te Serigne Bassirou Niane nekk njiit li yàlla dogal ma topp ci moom yore itam lu bare bare ci wàllu hébergement bi fii ci biir kër gi. Euh, Cheikh euh, ginaaw ba nga nuyoo mbokku téléspectateurs yi lay seetaan ndax mën nga ñu indil ay leeral ci ni kër gi di doxe ci wàllu accueil bi ba ter si seen i loxo ngeen gérer li nga xam ne mooy dëkkuwaay yi ak li nga xam ni mooy li toppatoo jëm si euh, berne yi ngir jébbal ko ñi nga xam ni ñoom la ñu dalal ci résidence Khadim Rassoul bi nga indi ci ay leeral. waaw rek mën nañ ne programme kër gi. yàgg na ñëw ci suñuy loxo ndax 2008 euh, euh, lañ ñu ko suñu borom dénkoon ñu yor ko wàllu hébergement bi maanaam wàllu lépp loo xam ne lu jëm ci xeetu bernde la ay xéewal ak lu mën a doon yàlla dogal mu nekk ci suñuy loxo ñu di ko yore muy ñaari kër nag muy résidence bi jàkkaarloog jumaa ji ak résidence ba la ñuy wax résidence euh, Daaru Marnaan foofu fu ci nekk itam ay gan di fa dal yàlla dogal nag ñu dénk ko kuréel goo xam ne moom la ñuy wax fédération groupement religieux culturel disciple de Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne Serigne Cheikh Gaynde Fatma moo ko sos euh, sëñ Mbacke Soxna loo ñëw boole ci ndaw ñu tuddee ko wilaya muy kuréel goo xamante ne nii xëy na lu ëpp ci yoonu murid wi xàmmee nañ leen ci wàllu organisation loolu moo tax ñu dénk ñu wàllu gan ñi nga xam ne moo nekk ci biir kër gi ñaari comité nag ñaari commission nag xëy na ñoo fi nekk mooy wàllu accueil bi mooy jëmm yi nga xamante ne ne xëy na bu gan gi dugg ci biir kër gi ci ñoom lay yem ñoom ñoo koy accueillir ginnaaw buñ ko dalalee ci chambre yi xam itam délégation bi mu bokk ak itam euh, délégation bi nombre personne bi ñaata la su boobaa moom da ci da ciy daal di wàcc daf nañu daal di woo ñun ñi nga xam ne ñoo yore wàllu bernde yi daal di ñuy jëbbal gan ñooñu gan gi nag ak coonoom ak noflaayam dafay aju ci ñun ba ni muy génnee ci biir kër gi ñun ñoo yore wàllu woowu ñi nga xam ne ñoo yoree akki bi nag mooy wax mu xadimatul ma la bu ko defee wilaya yore wàllu restauration maanaam wàllu xéewal yeeg yooyu waaye daal ci bu ñu tënkee rek ci effectif bi nga xam ne ñoo yore organisation bi suñu effectif mu ngi toll ci 135 personnes 135 personnes yooyu noonu dañ koo xaaj parce que 85 dem na Daaru Marnaan ndax euh, fii liggéey bi ni muy demee mooy ku ne xam ne ni avant Covid bi di am nii am na système bu ñu daan liggéeyee mooy bu waxtu añ jotee dañ daan jël benn réfectoire bi ak wala salle bi lal ko def ci bernde yeeg yëpp daal di dugg ci biir chambre yi invité gan ñi woo leen ñu génn bokk benn jotaay daal di xewloondoo waxtaan saafonte bu ko defee ñi jóge ci yeneen tarixe te gisante daaw ñu gisante wala ñu daan gisante ci tele bi yooyu mën a jàkkaarloo bokk ay xewal ak yooyu yooyu ay relation daan ci juddoo yoo xamante ni relation yu am la waaye nekk xam na programme bi léegi ak li xew te ñu war a sàmmanteeg mesure barrière yi nga xam ne ni moom la kilifa gi wax moo tax ñu amaat beneen méthode de travail boo xam ne moom lañ jël mooy gan gi ginnaaw bu ñëwee bu ñu dalal ko ci chambre bi chambre ba la ko lépp di fekk fa la ko ay xéwalam di fekk berneem lépp fala koy fekk du du am kenn koo xam ne ku mu jaxasoo la wala ku mu jaxasool ku nekk dafay fekk ne moom moo ko soxla pour pour pour mu am. ci biir loolu itam nag euh, soo xoolee ci appartement yi nga xam ne moo nekk fii ci résidence bi daa résidence bi euh, parce que juróomi appartement wala mën nañ sax ne ñeenti appartement ñu ngi fi muy bâtiment sëñ Mouhamadan appartement sëñ Mouhamadan ak appartement sëñ Modou Badar ak appartement sëñ Abdoulahat ak appartement sëñ Moussa Bassirou ak appartement Djili Mbaye bâtiment bu ci nekk dafa am tur am ñu ko tuddee waaye itam ci organisation bi nga xam ne moom la ñuy def mooy euh, ci suñu effectif tànn nañ appartement bu ci nekk benn lim boo xam ne nii ñoom ñooy féete ci appartement ba lim ba lañ ko fa sant mooy que ne muy toppatoo gan gi ci wàllu lekk ci wàllu naan ci wàllu hygiène ci lépp loo xam ne nii gan gi yittewoo na ko kooka daf ciy daal di taxaw ba ni gan gi di génnee ci biir kër gi ndax li nga xam ne moom la ñu suñu jëriñ yi wax te dénkuñu ko mooy gan gi ginnaaw bu duggee ci biir kër gi bu mu am benn jafe-jafe ba ni muy génneewaat ci bi ci ci biti donc kon loolu ñu ngi ci taxaw taxawaay bu baax te niñ koy defee fii noonu lañ koy defee Daaru Marnaan ndax ña fa nekk te équipe ba fa nekk itam eh, ñun ñoo leen fa teg ñoom itam ñu continuer di di liggéeyee comme ni xam ne noonu la ñuy liggéeyee bi nag xëy na yombul waaye itam yomb na ci ñoo xamante ne xëy na suñu borom tàggan na leen ndax ay ndaw lañ yoo xamante ne nii ndaw yi Serigne Touba lañ yoo xamante ni bëgg nañ liggéey bi ba pare Serigne Touba tànnal ñu boppam boole dugal ñu ci biir kër gi ñuy saytu liggéey bi moo tax à fois dañuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy sellal ba pare li ëpp ci suñuy te mooy dañuy soxla gan gi di lekk wala gan gi di naan wala gan gi di dallu ndax man mi nga xam ne ne xëy na maa nekk fii di di di joxe xéwaleeg yooyu boo xoolee xale yi ñu yi ñu dalal ci biir appartement yi sax pour ñu toppatoo gan ñi ku ci gan laaj dara fekk amoo ko da ngay am problème te mun nañu wax ne depuis 2008 ba léegi benn yoon lañu gan mës a laaj lu mu amul te dañ ko uti woon mooy fer à passer gan gu ñëw jël saagam def ci ay yéreem ñëw war a génn yére yi froissé mu laaj fer amu ko waaye ci changé duñ ko wax amu ko bu laajee feer bu ñëwee rek dañ daal dañ koy daal di daal di dem jënd ci sensé ñëw jox ko maanaam li ñu bëgg a wax foofu mooy bépp gan goo xam ne dugg nga ci biir kër gi moom euh, bokk ci délégation ñu dalal la lépp loo laaj moom amul moom duñ la ko wax moom bu loo ne naan na waaw lañ lay wax ba génn wëri ko bu dee lu ñuy dem jëndi wëri ko ci biir dëkk bi daañu ko wëri ñëw jënd ko andil la ko wan la ne moom ñàkkul dara quoi ñàkkul dara euh, xeeti yu bari itam dafay ñëw nag ndax soo xoolee ni ñu organisé dafa am lu tolloog six waañ yoo xamante ne nii trois waañ yi seen i xéwal ci résidence Khadim Rassoul bii lay jëm muy bi jàkkaarloog jumaa ji yeneen trois itam seen i xéwal ma ngay jëm ci résidence Khadim Rassoul ba nekk daaru daaru marnaan waañ bu nekk dafa am lim buñ lay jox pour nga togg ko ci limu palaat ci limu bool ci limu ginaar ci limu xar ci limu firir ak wàllu cere ak leneen loo xam ne ni loolu ci da ciy aajo loolu jubluwaay bi mooy xam nañ ne ñaari gan wala gan gi bu nekkee ci benn chambre añ jot ñun mënuñoo xam ndax gan gi ceebu jën la bëgg wala ginaar la bëgg wala michu la bëgg li nga xam ne moom la ñuy def te ñu ne wax ne teraanga bët la mooy gan gi dinañ fexe ba tegal ko ñaar moom mu def soam ban la ci soxla dañuy jàpp ne gan gi moom bu fekkee xërut ci ceebu jën bi di mën naa xër ci ceebu ginaar bi wala mu xeer ci missi bi moo tax lekk fu ci nekk danañ fa yóbbu lu tollook ñaari ndab donte kenn fa ne danañ ko tegal ñaar wala ñu tegal ko ñett yoo xamante ni dana def soam bu mu ci bëgg mu jëfandikoo ko des ñu ñu delloo ko te loolu mooy teraanga du tuuti te teraanga bët la li ñuy joxe ci gan ñi ci xéwal yi daf ñuy wér ne kii ñu koy jox di ko jëfandikoo ëpp na ko sax waaye daf ñu dañuy wane rek ne teraanga du tuuti lépp loo xam ne ni kii soxla na ko dañ ko koy tegal soo duggee ci chambre tey chambre bu ci nekk lala nga fa macha allah kilim yaa ngi dox normal euh, frigo baara nga fa boo xam ne xale yi heure bu ñu xëyee dina ñëw ci magasin ñu jox leen lu lu jëm ci xeetu fruits yeeg boissons yeeg ndox yëpp dañ koy remplir ba mu fees gan gi feek ngoon frigo bi du du vide suñu demee bu guddi itam bala ñoo bu ñu joxee reer ba pare bala ñoo tëdd dinañ remplir waat frigo yi ci xeet yooyu yëpp ba mu mat kon loolu mooy programme bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy amal fii ñu ngi tàmbali nag depuis démb le 15 safar war fee nekk ba le 19 ba ñu fanaan ba le 20 ba gan gi dem parce que ñu ñëw fiy jiitu gan ñi ñoo fi mujj gan gi kon loolu mooy li nga xam ne noon la ñu noonu la ñuy organiser ci ci ci biir kër gi te muy nekk loo xam ne lu lu lu yàgg la depuis 2008 ak léegi. doon nag loo xam ne lu jafe la waaye suñu borom dimbale nañu si. ndax foofu laa bëgg a dellu si sax euh, muy laaj boo xamante ni ji tamit euh, baaxoon ñu leeral ko tamit mbokk ñuy seetaan ndax euh, gérer li nga xam ne mooy mbooloo te ñoo xamante ni ji fu ñuy jóge barab yi wuute yombul. ndax bi ngeen yàlla dénkee mu nekk seen loxo ak léegi mos ngeen ci am ay jafe-jafe ci ñooñu nga xam ne dina ñëw di fi dal maanaam ci wàllu sécurité wala seen alal dem wala ak yeneen yu ci mel. waaw loolu yëpp mën a maîtriser jafe-jafe yi dafay mel ni loolu moo tax suñu borom tànn ñu boole ñu Seexul Xadim ba dénk ñu li ñu dénk du lu ndaw te ndax sax chaque jour damay wax ne nit ki bu fekkee dafa am gan gi mu gën a fonk woole ne la kaay toppatool ma ko war ngaa jàpp ne yow itam bokk nga ci ñi mu gën a fonk ci ay njabootam ndax boo ci gënoon a yaradi ko wala nga gën cee ñàkk xam wala nga gën cee am melokaan boo xam ne ni méngoowut ak li ñu li mu soxla du dénk ay ganam kon ñun bu fekkee Serigne Touba gani Serigne Touba yi nga xam ne ñoo koy dalal ci biir kër gi dañ ñoo tànn dénk ñu leen dafa am melokaan bu ñu war a mel loolu nag dañ ciy tàggat suñu bopp démb tey soog a ñëw mooy xale yi ñu àndal ak foo mën a jóge ak daraja boo mën a am boo ñëwee ñoo lay tegal lekk ñoo lay jox nga lekk ñoo lay jox nga naan dafay fekk ñu nag ñu tàggal ñu ci yar ak teggin ak mën a masla ak mën a berndeel ndax li ñu joxe soxlawuñ ko ñun li nga xam ne moo ñuy suural ñun moo ñuy suural sawarlooñu mooy gan gi lekk bu suur naan ndax xale yi bu ñu leen bu ñu ñëwee sax di bu leen gan laajee sax wala añ bi naajee sax dañu am problème parce que chaque jour dañu bëgg moom gan gi lekk naan am du benn problème dafay am nag ay jafe-jafe ndax nit ñi yemuñu xam nga léeg-léeg boo ñëwee fii léeg ñu xëy jox ay 300 personnes reer 300 personnes mënuñoo dal mënuñoo ñëwandoo 300 personnes yëpp nekk ay nit ñoo xamante ne xëy na seen lépp dafay mat donc dina si am ñoo xam ne léeg-léeg danañ am ay ay jafe-jafe waaye melokaan yëpp ñun dañ koy jël muure ko suñ suñu jëm muure ko suñu yar muure ko suñuy teggin muure ko itam suñu bëgg Serigne Touba ba nga xam ne ni lu ñu gan gi def rek ci lu naqar itam bànneex lañ koy def ngir liggéeyal Serigne Touba waaye dafay dafay dafa dafay dafay am léeg-léeg dafay am ndax léeg-léeg nga gis gan goo xam ne dafay ñëw waaye dafay mel ni eh, moom jaam la fekk ci ci ci kër gi koy toppatoo du gis ne yow eh, li ngay def Serigne Touba tax nga di ko defal du gis loolu du gis ne yow li ngay def Serigne Touba nga di tax nga di ko defal dafay dafay am beneen melokaan bu muy wane du am yërmande ci yow waaye yow yaay xam ne liggéeyal sa bés bi bu yomboon Serigne ko am jafe bi mun am jafe-jafe bi li ci Serigne Touba daj ba am ko moo tax ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey di ko liggéeyal jafe-jafe buñ ci mën a am rek danañ danañ danañ sàmmonte ak loolu danañ ko muñ ngir itam li li sëñ li sëñ Touba digle ñu ñu mën ko cee am waaye nag yombul wax dëgg yàlla yombul parce que nag gan goo xalaat dafay ñëw kilifa goo xalaat ak façon melokaan bu nekk léeg-léeg sax nga gis nit ñëw dugg fekk dalaluñ ko sax ci chambre wala mu ñëw waxtu boo xamante ne nii dañuy toog ba timis nit ñëw di ma laaj añ ba timis ay nit ñëw di laaj nga toog ba 4 heures ay nit ñëw di la laaj reer te ñooñu koo ci joxut añ wala joxoo ko reer moom dafay mel ni yow organisation dara baaxu ci kon bu ñu xesee ba tàmbali fi mu nii une heure di joxe añ ba 19 heures gan dugg ci biir kër gi dañ lay dañ lay joxe añ suñu programme fi mu toll boo xesee boo xoolee ñun bu ma balaa may joxe ndékki dinaa xam effectif bi nga xam ne ñoo fi fanaan balaa may joxe añ fi mu toll dinaa dugg ci bâtiment yëpp def rechargement boo xam ne dinaa xam effectif bi nga xam ne ñoo fi añe balaa reer itam dinaa ko xam ci loolu la ñuy xamee ne 15 safar nombre personne bi ñoo fi ñoo fi añee 17 19 ba le 18 nombre personne boobu ci loolu la ñuy sukkandiku nag bu déwénee ñu xam suñu budget lan la ñuy togg parce que ñun togguñu ay mbana di ko di di ko andi non par nombre plat la ñuy la plat bi ñaari kilo dina ci wala ñetti kilo dina ci nekk ñetti ñetti ginaar dana ci nekk ak benn benn benn benn mooco xar ñu ne la plate bi ñaari plate yi ñetti xar yi la ñuy ci ñaari palaat yi yooyu ab organisation la boo xamante ne ni xëy na bu añ bi ñëwoon tey ba nga ubbi ko ba xool ko di nga dina la sax dina la sax dina dina sax yéem waaw waaye liggéey bi daal yombul metti na waaye fukki at ak ñett loo ci nekk dana metti waaye dina yomb ci yow Serigne Touba nag lañuy ñuy liggéeyal doon ay ndaw mënoon a nekk ci leneen Serigne tànnal ñu boppam dénk ñu ay ganam duñ mën lu dut buñ doon sëgg sax gan ñi di nappaaji suñu kaw mbégte lañ koy def ngir liggéeyal ko Serigne Touba ba liggéey bi lépp jaar yoon te ci loolu la ñuy def xooluñu lu ñu neqare ci gan xooluñu lu neex ci gan soxlawuñu gan gu ñu xam soxlawuñu gan gu ñu mere soxlawuñu gan gu ñu xam li ñuy bañ daal mooy gan gi moom dugg ci kër gi moom am lu ko naqari mer loolu moom moom mooy li xam ne mooy suñu bañ à loolu rek moom lu ñu gan gi def d'accord nañ ko ngir liggéeyale ko Serigne Touba jërëjëf ci loolu euh, euh, euh, sécurité bi man daf ma soxal Euh, ñu gaaw rek ndaxte lu ñu dese ci waxtu wi daanaka ñu ngi ñuy signalé euh, bu fekkee ni ci côté sécurité bi laa ndax mus ngeen a am jëmmi jamono rek ngeen ñëw am kilifa goo xam ne ji ay bagages am manqué na wala daal am na loo xam ne ji jot na euh, réer ci li muy ëndaale woon. non loolu du am parce que tax loolu du am mooy bâtiment bii rek boo fa bëggoon a dugg di nga fekk nit ci bunt bi faaw mu xam yow ndax da ngaa bokk ci délégation sangam wala lan moo la fi dugal dèjà kër gi rek dugg fi yombut. jëmmi kër gi rek dugg fi yombul waxuma laa na ngay dugg ci appartement appartement bu ci nekk ñun parce que ñaari sécurité moo fi nekk mooy service d'ordre bi nga xamante ne xëy na ci ci ci wàllu wàllu wàllu wàllu kii la ak ñun ñi nga xam ne nii dañoo miin kilifa yi xàmmee itam nit ñi dëkk ci dëkk bi appartement bu ci nekk di fa fekk benn élément boo xam ne ma nga fa taxaw boo ñëwee appartement bi élément bi dina xam ndax yow mi ci délégation sangam nga bokk wala da dal ci chambre sangam wala lan moo la fi dugal du du kum neex da nga ñëw dugg ci appartement néeg bi itam ñañ fay teg ay nit lañ yoo xamante ni wér nañu ne milliard buñ ko bàyyi woon ci néeg ba ki xëy di bale néeg bi bu ko balee du ko sax randal dana bale néeg ba ba mu set dana ko fa bàyyil bu ñëwee fekk ko fa chaque jour nit bàyyi fi dara gan ji bu ñuy dem dañuy jël caabi ji jox ko xale bi nga xam ne ni mooy yore chambre bi te seeni bagage yëpp dañ ko fay bàyyi ay téléphone ak lépp dañ ko xale bi caabi ji mu dem parce que heure bu ñu xëyee xale yi dañuy nettoyer dugg nettoyer defar lépp jël say bagage tegale la ne boo ñëwee fekkaat fa lépp loolu moom dara du ci manqué ndax dara du ci manqué mooy nee leen ñii yore organisation bi ñu ñu tànn la ñu ñu defar la ay ndaw lu ñu yar la xam xàmmee nañ bu baax a baax li ñu moom ak li ñu bokk ak li ñu leen booleeg li ñu doonul dara loolu nag tàggat la boo xam ne ni ku xam Serigne Cheikh Gaïndé Fatma xam euh, sëñ Mbacke Soxna Lo bu ñu leen ñii ay ndawam la am na loo xam ne waru laa jaaxal kon loolu moom amul benn problème mosuñoo pare nag wax dëgg yàlla nit ñëw ne sama téléphone réer na wala sama nangam nangam wala feneen lay réer waaye du doon ci appartement yi du doon ci ñi nga xam ne ñoom la ñu yore parce que ñaari sécurité la ñu am ñun mooy ginnaaw bi ñu commission boo xam ne day sécurité ñun suñu bopp itam dañuy sécurité mooy ñun ñooy dugg ci néeg gan gi di ko jox lekk di ko jox naan accès bañ fa am kenn amu ko fa loolu moo tax lu ñu loolu am na solo kon dañuy kàddu gi ñuy euh, maanaam euh, tëjee rek euh, très rapidement mooy ndax ku ne ku ne gan nag di di di xam ñan ak ñan ñooy gan ñi ndax ñi ngeen di dalal ci wàllu nguur gi rek lay doon wala ci wàllu kilifa diine yi rek wala man mii tey nii su ma ñëwoon rek ni la ah sëñ Jili Cheikh Ndigal damaa bëgg fu ma dalloo ndax loolu dina yomb. noo yombul parce que nee naa la kër gi dafa am na muy doxee tey soo xoolee avant bu ñu bu ñu tàmbalee safar bi. dafay may gan ñu fi ñëw ñenn ñi xalifa bee leen dalal ñenn ñi Cheikh Bass leen di dalal waaye ñun waxtu bi ñuy tàmbali muy 15 safar mboolem gan goo ñoo ñëpp dañ leen dañ leen di génnee récupérer caabi yi jëwriñ yi nga xam ne mooy waa Muxaddamatul Xidma dañ leen di génnee récupérer caabi yi commencé na di recevoir ak délégation yi délégation Tivaouane délégation Ndiassane délégation Laayeen Ñaseen tarixa yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal yëpp nga xam ne dañ leen di jox invitation sëñ bi da leen di invité pour yooyu la ñuy dalal donc du foo xam ne nii moom bu la neexee da ngay ñëw rek ne damaa soxla chambre wala damaa soxla nangam déedéet dafa am fooy jaar ñu xam yow yaay kan lan moo la tax a jóg pour ñu mën la dalal am na beneen kii itam boo xoolee fi mu ne kër gi du ñu boole góor ak jigéen du ñu leen boole ci benn néeg donte sa soxna la ak donte kilifa nga du ñu leen boole ci benn néeg moom délégation bi soo àndeek sa soxna dañ leen di ber ci benn néeg góor ñi di ber dañ leen di ber ci benn waaye li ëpp ci ñi ñuy dalal fi daal fi mu toll nii mooy délégation religieuse yi la ñuy ëpp ci lu ñuy dalal su dee wàllu politiciens yooyu ñu si ëpp dañuy ñëw ziare sëñ bi ñu defal leen ay bernde ñu daal di delluwaat waaye duñu duñu fi daal di fi fanaan ak yooyu noonu kon loolu mooy programme bi ñu ñëpp nag di sant ñëpp di ñaanal ñëpp ñu ñëw màggal si jàmm dellu si jàmm suñu borom dimbale ñu ba ñun li nga xam ne moo nekk ci suñu kaw te suñu borom yen ñu ko Serigne Touba itam yen ñu ko yal nañu ko Serigne Touba oyofal ba ba ba mu oyof tooy ndax du diis la du lu yomb ku ci lekkut naanoo ñun dañoo jàpp ne suñu defet la suñu erreur la lu ci baax nag dañ koy sant suñu borom sant ko Serigne Touba kon ñu ngi jégalu ñëpp ak jërë ngeen jëf. mu nekkoon euh, ki nga xam ne rek mooy Cheikh Ndigal euh, Diop nga xam ni moom la ñu dénk li nga xam ni mooy wàllu. Euh, bernde yi ak hébergement yi fii ci résidence Khadim Rasoul ci Touba dëkk bu sell bi tey nag moom la ñu doxantu woon ñëw jël si leen ngir gën a xamale ak askan wi ngay xam ne ñooy seetaan seen télévision Khass TV di télévision askan wi lépp loo xamante ni ji euh, maanaam euh, luy bàyyikoo la ci màggal gi ni ay xabaar incha allah dinañ ci xar suñu tànk tubéy ngir liggéeyal sëñ bi waaye tamit ngir jotal ko ñi nga xam ne ñooy askan wi ñuy seetaan ba dara du leen ump donte teewuñu fii ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké ci dabar si di jaajëfal tamit mbokk téléspectateurs yi waaye di jaajëfal suñu mbokk techniciens yi toute l' euh, de la chaîne du peuple euh, Khass TV ñu ngi leen di jox euh, rendez-vous ci kanam tuuti incha allah. وابح الله